yaa man ala an zawjatin wa an walaat hudni wa ud jamia alisal balaat wajalilaay maskani tubabat misras mi abijaayi xayri man abaat wajalilaay maskani tubabat bislasmia bi jaay xayri man naba bokki asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi tubaa ca kanam ci njiital sëriñ Abibu Mbàkke mu sëriñ Fàllilu ci yitte ji ak xalaat bu rafet bi nga xam ne ca njëlbeenug nawet gi nga xam ne ci taw yu njëkk ya mbokk yu bari dañoo loru ci dëkk bu sell bi di Touba ndox bi nangu seeni kër seeni bagaas naax saay sëriñ Abibu jóg sol ay dàllam ne faw ñu taxawu bokk yi nga xam ne dañoo gàddaay bàyyi seen lépp ñu wuy si woote ku tedd gi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu amuñu kenn gëmuñu kenn bëgguñu kenn ku dul sëriñ Touba ak dëkkam bu selli bii kon lu leen fi dal ñun ñoo leen war a taxaw ci la jóg dem ci Serigne Mountakha waxtaan ak moom ca njëlbeenu nawet gi laa wax sëriñ bi lu ci bëri yëgu ko woon ci la yëkkati ab lim jox ko. ne ko loolu de lu leen waaye defal man la ko defal fukki million la njëkk a yëkkati jox ko sëriñ Abibu sëriñ Abibu ànd ak bokki talibe yi woote jaayante ñu door barab bii ñu taxaw di wax ak ñu dëppee ko kër wallu di recenser nit ñi ngir ku dem ba mënatoo nekk ci sa kër ndax ndox mi boo ñëwee ñu dalal la fii ndax kat sëriñ bu nee na ñii sëñ Tuubaa leen woo ñii sëñ Tuubaa leen wuyu si lu leen fi dal waa kër sëñ Tuubaa yàlla war a taxaw. kër wàllu gu nag mbokk yi yëf yi bi mu takkarnaasee ba sëriñ Muntaxa yeesalaat kàddoom yooyu moo xoon ak sëriñ Abibu ba yëkkati lim bu takku tey kër wàllu gi mboolem lu fi nekkoon ci ay néeg fees na ndax kat ñii dañoo gàddaay buub seeni bagage na ñoom mënuñoo xaar ku leen recensé ndax kat xajatuñ fañ nekkoon mu ngi nii yéen a ko gisal seen bopp Touba kanam nag naka jekk laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam Touba ca kanam naka jekk yittey askan wi ci la ñuy xëy ci lañuy gont ba ñëpp tàllal leen loxo président Touba ca kanam a ngi nii di Serigne Mame Mor moom Serigne Modou sa Dieng bay léppam ñëw di taxawu si kër wàllu gi ànd ak Serigne Abibou mbokk yi ak lu mën a xew na ngeen xam ne Touba kanam ñoom ña nga ca lañu nee woon taxawu dëkk bi taxawu waa dëkk bi. gindi dëkk bi gindi waa dëkk bi kër Walo gaa ngi nii kon yéen mbokk yi yéen ñi nga xam ne sunu borom kat mën na leen gan yéen a ngi tëj seen i kër te yittewale leen ko yéen a ngi am ay étage yu bëri yoo xam ne sancu leen ko da ngeen tëj yéen a ngi am ay néeg yu bëri yu ngeen tëj ngalawaay ngalawaay ngalawaay wuy si leen wooteeb abi bu bii wuy si leen wooteeb Touba ca kanam ngir lan ñu taxawu nit ñi sonn nañu de ñii bi ñuy ñëw fii kenn indiwu leen. nee nañ mënuñu xaar ku leen recensé kon ay ci mburit sëriñ Mamor yaakaar naa ne lii de daw na yorom lool waaye ba sëriñ bu du jóg di xalaat kër wàllu gi ñu bari ci dëkk bi jàppoon nañu ne jaru ko sax waaye tey de l'histoire la donné raison ñii de gis nga leen. jërëjëf. Euh, kaddu yi am na solo lool fii ku fi ñëw rek saxol sa saxol tooy na ndax dëgg dëgg nag ñu ngi koy situation bu difficile bu metti boo xam ne lu jar a bàyyi xel la. nit ñi jaaxle nañu am nu fi ñu dugg ndax barab bi ba ñu koy defar sax jot te sotti du fi définitivement ñi ñu dugal seen bopp ndax mënatuñoo supporter kon mbokk jullit yi mbokk taalibe ñu ngi leen di woo yëf yi metti na te yaakaaruñu kenn ku dul Serigne Touba ak ak njabootam lii nag dañuy wax ne Touba kanam teel na ko yëg teel cee dox ba kër gi bi ñu koy tàmbali boobu mën nañu wax màggal gi boobu ñëwagut waaye bu ñu ko defee pare xam nañ woon ñàkk di sant bu baax man Serigne nga xam ne moo jiite yoonu murit tey yëf yi ñor ko yitteel ko mu jàpp ci tàmb di njëkk ci def alalam kon ñoo ngi woo mbokk yëpp te xam ne barab bi yàlla dogal na fees na ñi fi nekk nii amuñu fu ñu leen dugal kon ñoo ngi woo mbokki taalibe yëpp mbokki jul yëpp ku am barab boo xam ne mën naa eh, dëkkal nit ñoo ngi la koy sàkku ci barkeb Sëriñ Tuubaa di la ko yalwaan nga teg ko ci loxo Tuubaa ci kanam mu dimbale ko ñi nga xam ne yittewoo nañ ko te amuñu kenn fu fuñ jëm ku suñ Tuubaa rek la ñu yaakaar kon sëñ Cheikh yëf yi yëf yi jar naa jar naa bàyyi xel a baax a baax si ay bi bu nag macha allah ñoo ngi koy sant ba di ko gërëm ndax ma nga toog boobu ba léegi moo ànd ñu liggéey bi amul guddi amul bëccëg amul waxtu lekk amul waxtu naan ak waa Touba ci kanam gépp ko Touba ci kanam yéen seen Touba ci kanam la nit ñi yaakaaruñ ko waaye yéen lañ yaakaar kon lépp loo xam ne mi ngi seen loxo te mën a jëm ci njabootu Serigne Touba def lañ ko ci ngir Serigne Touba mi nga xam ne dëkk bii ba nit ñi di ñëw la leen jëlee seen dëkk mooy jàpp ne bu ñëwee fii dañ gën a baax te mi ngi fi nag mi ci loxo taalibe yi kon nañ ko génne def ko ci dëkk bi jox ko Touba ci jox ko taalibe yi Serigne Touba yi ko ndax kat képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te am loo mën a dimbulee mbokkum jullit ba wàññi jafe-jafem bu fekkee di foo ko boo léegi doo am lay kon yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla xiir nu ci liggéey Sëriñ Tuubaa rek ndax jaamu yàlla ñoo wax ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon nag waxtu wii waxtu woowu la kon daal ñoo ngi woo ñëpp ñu gën a jóg gën a takku gën a farlu ci wàllu ku am kër koo joxe baax na ku am ab dund baax na ku am basang bu ñu lal baax na ku am matelas bu ñu lal baax na ko am jumtuwaay bëpp bëpp xam ne itteewuñ ko rek bara bi da koy soxla bu baax a baax kon daal sëñ Cheikh jërëjëf yàlla na yàlla mottali lépp di wax ne li ab tàmbali la nag ñun ñoo nga ca ku ñëw fekk nu ca ñoo ngi wa weddi nag gis bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñëw waaw tàllal nañ leen suñu micro laaj leen fu ñu jóge ak lu leen indi ñun xam nga dañoo jóge si mbënd mi ba ba léegi dañoo sonn at yi yëpp ñu ngi dëkk si ay taataa chaque année rek dañuy génn chaque année dañuy génn tey jii nag ñu gis ni Touba ca mu ngi def ay xéewal yoo xamante ni pour jullit yi la waaye pour taalibe yi la ñu jàpp ni sëñ Abib ñëpp la fi nekkal waaye sëñ Touba moom sëñ la kon ku fi am jafe-jafe rek bu sa bët xonqee sëñ Touba ko faj te ñun ay taalibe lañ amuñu fuñ dëkk boobu ba léegi ñu ngi comaay fu ne jëm nañ fa ñu gis xéewal gu mel nii ñu xam ni sëñ Touba ñun rek la ko defaral ñun tamit ñu àndandoog suñuy ak ña fa taa ñëpp ñu génn ñëw fii pour mën fee wéeru ba buñ mënee am sax ay kër yoo xam ne fa la ñuy dëkk moo ñu gënal parce que fee ñu nekk ne son nañ fa maa ngi jógee fii nii Kër Baye Laat arabarse sama kër de ndox mi daa fees del daanaka mën naa ne ne néeg yeeg lépp dañoo am ndox ñi leen di sant nag yéen waa Touba Ca Kanam bu baax a baax leen ñaanal taw tawfeex gis nañ ni ngeen taxawee ci affaire yi ñaan li ma ciy wax daal mooy euh, ñu gën a fonkaat euh, ndigalal sëñ Mountakha lim lim digale ci dëkk bi ñu gën koo fonk mooy carte yi ñu dagg sax la cinq bu ne bépp nit bu ne rek war naa ci war na cee mën a jéem war na cee mën a góorgóorlu bu baax a baax daal euh, def ko muy sa yitte ba sag weer daal lépp loo lépp loo jàppoon nga bàyyi ko nga dem dagg dagg Touba ci kanam 1000 francs parce que ñëpp la ko yàlla man loo képp ku ko defu daa doon loo xamante ni du sa yitte wala neexu la rek mais man nga ko daal. sama kër daal ma nga taa xeej aw ma fenn fu ma génn ah fi mu ne nii moom ne baax rek seen na sell na baax na sant yàlla rek lañuy ñuy def Touba ca kanam waaw dagg bi moom nañ koy farataal. la cinq bi jot a jekk sax ñun ci la ñu fekk ñun weer wu dee la cinq bu ne moom la ñuy nattal joxe ko. mënuñu def lu dul sant leen te di leen gërëm te di ñaan taal bi bu nekk fa mu nekk na ko na ko na ko jël def ko jëmtukaay fas yéene ko liggéeyal Serigne tubaa ndax lii ku ci jàpp Serigne bi jàpp ci ku ci jàppul Serigne bi jàpp ci te Cheikh waxoon na nag bëri nga ci mbartal buux mu dem buuxul mu dem. loo xam ne nag boo ci tegee sa loxo mu mel ni yaa koy doxal te doxaloo ko kon teg ci sa loxo mu dem ndax sëriñ bi moom yoonam wi amul tànk ginnaaw tànki kanam rek la am. waaw ma sant waa Touba ci kanam bu baax a baax a baax di sant waa Touba ci kanam bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla fa ñu nekk mbënd ma sonal nañu suñuy miir daanu nañ suñu kër yàqu na waa Touba ci kanam tamit wax dëgg yàlla jàpp nañ ci mbir yi wax dëgg waa Arrêt Barre Cissé sonn nañu trop. waaw waa Touba ca kanam ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax lii lépp ñoom la barke Serigne Saliou Mbacké ndax amuñu woon fu ñu nekk dañoo nekkoon ci këri jàmbor di toltonaar rek te xam nga nekk ci kër ak jàmbor da nag ñu ngi sant yàlla bu baax ba ñu waa Touba ca kanam defalee lii ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ca kaw ca kanam di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi loolu te ànd ak wér kontaan nañ torop di kontaan ci yéen yi tamit macha allah. ngeen fi def moom kenn defu ko sëñ Fallou yàlla na ca kanam. wax dëgg suñu xol sedd na guy ci waa Touba ci lii ñu def nii ndax amuñu seen fay te la gën a sedd sama xool muy bi biñ sëñ abi moo ñu jiite léegi ñu julli te wax dëgg yàlla bi mu egsee neewoon na am na ñoo xamante ni joxoon nañ leen kër yi yàlla def mu ni moom ginnaaw suñ tuwaay ñoom moo tax ñuy def kon ki nga xam ne xës na ba ñëw dootuñu ko gàntu ndax nax ndax buñ ko gàntoo rek day mel ñoom liggéeyaluñ suñ tubaa ndax seen mbir lépp suñ tubaa la ki nga xamante ni dafa boob ay bagaasam egsi te wóowoo ko mu egsi kooku jaaxle na te sëñ bi manoon na taxaw tey jii daan ni joxe nañ euh, pàkk yi ba pare te gisoo ki kiñ ko jox bu boobaa day mel ni sëñ Tuubaa taxul muy def wax ji wax noonu nag moo sedd sama xol ma xam suñ sëñ Habib moo ngi liggéeyal sëñ Tuubaa te lii muy wax lu wér la ci moom te lu dëgg la te kim mu doon jokkoo téléphone tamit wax ji mu wax moom it mooy dañoo day sëñ bi ki nga xam ni njëkk naa egsi si ko mu dugg kon ñu ngi ñaanal sëñ Habib suñ borom guddal aw fanam te wéeral ay cëram. sëriñ Habibou kat nee na ca njëlbeen ga ba mu solee ay dalam dugg ci barab yi xool leen déglu leen ci la noppee wax ne képp koo xam ne mën ngaa tëdd sa kër di nelaw ba yandoor te am say mbokki taalibe yu nekk fii ci dëkk bi ndox mi nangu seeni kër ñi dëkkaaleek moom man yaa ma man moo tax mu ngi nii waxtu wu set mu ngi fii ci kër wàllu gi mbokk yi mbir maa ngi nii nag def nañ fi làmp indi fi ndox indi fi ay douche tabaxal leen ay barab yoo xam ne mëntañ cee nekkandi mbokk yi waaye fees na de na nit ñi ubbi kër yi te yaatal barab yi yitte woon nañu ko de bokk yi képp ku mën a tëdd nag di nelaw ba yandoor te ñii gis nga leen danoo gàddaay te kenn woowu leen ñi des ci biti ñoo ëpp téeméeri yoon Touba ca kanam nag du gontal du fanaanal waxtu wu nekk mu ngi ci yitte askan bi ku ñëw it fekk leen ci kuy dem ci nga leen di bàyyi jërëjëfati Serigne Touba. ak sama application Wave naa ci jaarale sama addiya. mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a yónnee ci Touba ca kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci compte yi ca kanam jër jërëjëf Serigne tuuba